moo la raw door a jug julli gi ndax nee nga giiwut la raw xañ na fi bu la neexee itam njëkk a julli gi teew bu door a fay yi raw ci gannaaw hmm. bu waxtu waxatoon nag moom faaw day aajoo nga gi teew door a julli bari yooyu raw tàmbali juróom benn jëm kaw ba tey jàppal ni bu la ñeenti julli rawoon mbaa ñett mbaa genn am genn gu day war niñ ko léegi nga ba noppi doore a julli gi teew donte xam nga ne sax boo fi nekkee di julli yooyu raw la moom day jàpp ne loola bariwut la raw bariwut ndax ñeent la jëm suuf kon su boobaa day war nga jiitu yooyu door a ñëw ci gii waaye nag soo ko teyoon dañ ko waxee woon njëkk julli gi door a julli yooyu itam bàkkaar nga yem ci ñàkk tegale rek waaye li fi bokkaal yu ñu waxtu moom tegale ko du sart warugar la nag bokk waaye am bàkkaar rek mu des na juróom juróom moom ci lañu wute am ñu ko boole ci bari gi am ñu ko boole ci néew gi waaye yow say boole ko ci bari gi rek ndax nga génn ci wóote bi mu noppal la jàppale ne daal juróomi julli jëm kaw bu la rawee rek moom am genn gu teew da ngay seet ba xam su waxtu wa yaatoo nga xam ne mën ngaa julli yooyu ba noppi door a julli gi teew te du la raw lu ci neex def bu la neexee njëkk julli gi teew door fa yooyu bu la neexee fa yooyu àggal door a julli teew bu fekkee waxtu wa xat na nag nga xam ne boo fi dee fay yooyu boo ñëwee fekk gi raw la kon nga julli gi teew ba noppi rek doora fa yooyu ci gannaaw kon nga yow nga far boole juróom ci bariwaay bi rek noppi noppi ci bañ cee sonn moom zakara ku fàttaliku faa itatan julli bi aji faat fi wax ci yetin ci julli gi ko ñu waxtu yeji bu boog dafa boog dafa war tartibu ak toftalee ma ànd ak moom ñu seet kon dane boo dee julli julli goo xam ne yaa nga ci waxtoom am julli goo xam ne raw na la waaye daa waroon a sësaloog gii mu ngi mel ni jamono yi nga taxawal di julli tisbaar ndax noo ngi toll waxtu tisbaar nga fàttali ko noonu julli woon suba waaw loolu lay wax loolu bu fekkee ni bañu bàkkaar moom da ngay dagg gii nga xam ne mooy kooku tisbaar gi te dellu ci suba boo noppee ne door ba am waa tisbaar waaye na ci noo koy daggee itam liy bëgg ko wax am na koy dagg am na koo xam du dagg mooy fa inkaana dem nekk na fat zan di kenn xataxam mu dagg julli googu maalam yaa aqid dafay pasut rakatan ab rakka di wadd yadde yi ci teg yaari loxoom xalaa rukk ba tey ci yaari yéen bu fekkee da ngaa taxawaloon ci misaal di julli tisbaar fàttaliku ne julli woo suba kon nee na bu fekkee amagoo benn rakka bu mat maanaam rakkoo goo ba siggi ci benn rakka danga koy daal dëgg rek noonu daal delluwaat ca suba boo noppee door ñëw ne julliwaat tisbaar fa in xaq daxaa fas na rakk ba nag damma mu tàpp maanaam mu boole ilayha jëm ci moom oxra beneen waxarajate mu génn xan safin bàyyi ko ci tollan tollan mooy ñaar maanaam bu fekkee bi nga taxawal tisbaar ba ko julli fàttaliku ne julli woo suba fekk na kat am nga rakka bu mat ci tisbaar rakoo nga ci ba siggi bii sax mu jël nga naa rakoo nga ba siggi moom boo xësee teg say loxo ci say bët yoom rek ñu jàpp ne jeex na moo tax mu boole ci bi wadd yedday xalaa rakku ba tey maanaam kon jàppal ne fii moom boo xësee sëgg ba teg say loxo ci say bët yoom rek da nga daal jàll tegaat ci benn rakk muy ñaar nga def comme naafila daal taayu sëlmal door a dem na julli suba door a ñëw ci tisbaar hmm. wa in kaana ndem nekkoon na imaaman di ilimaan xataxa mu dagg wala yastaxlifu te du wutal nee bu fekkee yaa doon jiite far loolu dal la du nga dagg sa julli googu dem julli ci suba door a ñëw nag julli ci doo mën kenn ca maamum ya wa yasri dana royaat sax daalika loolee li salaatil ma'muumiina ñeel jullit maamum ya mooy loolu leen loolu ko dal moom ilimaan fekk ne sax dalutoon maamum ya ñoom boo demee suba raw leen woon waaye du tee buñ leen tàmbalee jiite te fàttaliku loolu loolu day dem day sar ba ci seenu julli mooy ñoom itam dañu dagg rek waaye du mën a wéyale googa kenn ci ñoom du mën a ilimaan tam dem nekk na ma amoon di maamoom nag tamaada mu wéy maha imaam yi ànd ak ilimaanam fa isa faraxa ndem noppi na salla mu julli maa la nga xam ne nasiya fàtte woon na ko su ma yooyu du topp mu baamu maa la nga xam ne salla julli woon na ko mahal imaam yi ànd ak ilimaan ba fi waqti ci waxtu wa xam nga wax na la léegi boo dee yow dong yaa julli ak boo doonee ilimaan ñooñu ñëpp moom lañu dagg mu des nag bu fekkee da ngaa nekkoon maamoom nekk nga taxawal ci jàkk ji ilimaan di la jiite nga fàttali ko ni kat julli woon suba ba julli woon nga ko waaye yàq woon na am na lu ko yàq waaw su boobaa da ngay far wéy rek ilimaan ji moo lay tënk mooy da ngay wéy rek ànd ilimaan ci julli ga te sa julli googu baax na su ilimaan sëlmalee nag nga julli suba mi la rawoon soo jullee suba ba noppi na ñu sopp rek nga baamuwaat tisbaar nga baamaat ko ngir mu sësaloo suba rek waaye baamu gi ak sopp rek la fa isa kaanat ndem nekkoon na jumxatan di juma sallaha kon mu julli ko duhuram muy tisbaar bu fekkee ne lool dalaa rawoon dalaa daloon ci julli juma ne nga demoon jumaa ji rek di julli ay juma rek far fàttaliku ne julliwoo suba kon xam nga julli nga ànd ak ilimaan baax na léegi da ànd ak moom rek bu salmalee nga daal di fay suba ma la rawoon waaye nag su boobaa doo waat ajjuma da ngay baamu tisbaar waaw kon boobaa boo dee baamu léegi ngay baamu tisbaar te bañ a baamu ajjuma mooy bul julliwaat ajjuma tisbaar nga koy far soppi benn yoon. lii ak yeete la say ati xalsat naa dikk ne ànd xaq dara rek xati naka fasub rakk xinda bunil xaasim fa ibnul xaasim bi raf si nekk na ci yëkkati bopp ba mën a rukkoo bàyyi ko ci rukkoo illaa fii masaa ila ndara ci ay masala madkurat ñu juñ tudd fil mutawalaati ci téere ñu guddal a nee na daañu la leeral ne la li lay xamal ne ràkka bi fas na ba mun laa dabaatal la ko weesu wala yu demee noonu ci àtte aju ci fas bu ràkka ak fas wut loolu mi ngi takku ci daa am ñaari kilifa yoo xam ne ñoo ay wax kenn ki nag mooy Abdourahman Abdoul Qasim ku siiw la ci fiq Malik moom daa wax ne balaa rakka bee fasu dangaa jàpp ci say moom ba siggi mooy dangaa rukkoo ba siggi rakka boobu door a fasu hmm. achot nag moom wax ne boo xasee sëgg rek ba teg say loxo ci say say bëtiwoom rek rakka ba fasu na ñu wax waaye am na ay benn benn masala yoo xam ne moomu dëppoo nañ ci ñoom ñaar mu day fekk si achot ci nga xam ne boo xasee teg say loxo ci say bëtiwoom rek boobu rakka fasu na bii nag ci la bokk masala mi nga wax léegi ci la bokk nag mooy di julli julli goo xam ne yaa nga ci waxtoom fàttaliku goo weesu goo xam ne julli woo ko ba ñu war leen ba ñu tegale moom booy xës teg say loxo ci say bët yoom rek jeex na dañ ko waxee woon dangay daal jàll tegaat ci beneen def am nafila taal yu fay googee la rawoon door a ñëwaat nag baamuwaat gi ci kaw sopp faslu li ab dog la yaxaramu dana araam xale ci mukallaf salaatu nafli julli nafila inda tolooxi jant wa ndax xurubiha ak fa ak soxam am na waxtu yoo xam day araam nga naafile ci boo ko tàmbalee itam nga dagg ko kon bokk na ci jamono yi jant bi tàmbalee fenk am luy génn ci moom te lépp génn wut moom dafa araam bu génnee ba noppi nag na nañu wax ko tuuti ci kanam tuuti sib ga dee dellu si ba keroog muy yëkkatiku lu tolloog ñetti mètre ci sa bët mbaa ñaari mètre genn wàll ba tey bu tàmbalee soo noonu lay mel bu tàmbalee sox day araam moom naafila foofu bu soxee ba noppi nag bu dee ci fiqu Maalik sib ga sib ga naafila del siwaat ba kera ngay sëlmal timis waxi nda xutbatul ci ak fa jumaa ba maanaam bu ilimaan tàmbalee xutba ci jumaa ji su boobaa day araam nga di fa sos ak la ndax ñoom dañuy jàpp ne déglu xutba bi warugar la te naafila gi lu ñu sopp la kon nag waroo nekk di def lu ñu sopp bay bàyyi warugar su boobaa kon day araam boo ko fa daggee itam na koy tàmbale ndax wér na ci at yi sax julli ci yooyu jamono waaye fiqu Maalik moom gisewuñ ko noonu waxinda déexil waqti ak fa xatu waxtu wa aw bax da xoroo ji wala gannaaw génn waxtu wa li man ñeel koo xam ne alayhi war na ko fardun farata nee na su waxtu yu xatee ba nga xam ne ba fi nekkee dinaa fi la ab ràkk sax doo ko ci am far mbaa waxtu yu jàll na ba noppi fay bor doo nga des te fayagoo sa bor boobu su boobaa araam na ci yow nga su waxtu wi xatee te jullee goo xam ne boo fi naafile rek ab rakk doo ko ci am kon day war nga bàyyi naafile yi te julli farata ji am ci rakk bala mu laa raw ba tey bu fekkee léegi waxtu yi moom jeex na te yow jullee goo ko yooyu jamono kon sañ naa naaf sañ laa sañ laa naafila ndax boo xasee amee bor rek li fekk julliwoo li fekk fayoo bor yi doo sañee julli julli naafila xanaa dañ seetee lu mel ni safaa wetar rek ñaar rakkay fajar rek xaritu tabaski ak wetar yooyu rek yooyu de lañ ci seetee ci wax nañ ko sax ci jawar wa yukrahu def ni sib baxda tulooxi wa yukrahu def ni ko sib moom naa fi la baxda tulooxil fajiri ci gannaaw fenku fajar ilaa an tartafin ba ba muy yëkkatiku assamtu jant bi xiidaroom him lu toll ne xeec wa baxda fardil xasri ak gannaaw faratay takkusaan ilaa an tusalla ba dee fi julli almaxribu timis waaw daa wax ne bu la wóoree ne fajar na yooyu jamono dañuy sib ku fa naafila lu may ñaar rakkay fajar ñaar rakkay fajar rek nga sañ a naafila sib googu day wéy nag ba jant bi tàmbalee fenk ba tàmbalee fenk na ba kere fenk te day jeex moom day araam ni ñu ko waxee léegi bu fenk nga jeexee sib ga dul siwaat nag ba kere muy yëkkati mu toll ñetti meetar ba tey boo xasee sëlmal takkusaan dañuy sib la xam ne taamu ko bañ nga def moo ba kere ngay dem ba jant bi tàmbalee sox te lépp soxagut bu tàmbalee sox te lépp soxagut moom ci araam lay doon day weesu sib bu soxee ba noppi nag sib ga dee si waat ba kere ngay jul timis ba noppi xanaa ñu seetlee ci rek ne la ne bu dee lu mën a julleeg néew wala sujjóot alquran moom daañu la ko may gannaaw boo sëlmalee takkusaan ba li fekk muxtaarum takkusaan di jeex rek daañu def may nga jullee fi ak boo tolloo ci bérébu sujjóot ci alquran gannaaw julli suba it noonu daañu la may gannaaw julli suba daañu la may nga sujjóot alxuraan euh, waxuma la sujjóot alxuraan daañu la may gannaaw boo jullee suba li fekk muxtaar mu jeexu jeexut mën nga faa sujjóot sujjóot alxuraan boo ca tolloo mën nga faa julleeb néew waxinda azaanil jumuhati ak fa noddul jumaa ga lil jaalis ñal aji toog nee na bu fekkee ne dañoo dem dangaa ñëwoon ba toog ci jumaa ji fekk noddoguñ ba ñu nodd na nga jóg rek di julli mel ni ko noddi nga doon xaar su boobaa daañu ko sib rawante bu muy kilifa goo xam ne dañu roy ci moom ni saraa bi waxee sax daa mel ne moom bu dee kilifa gu ñu roy ci moom lañ koy sib maanaam daal ñëwoon nga ba toog mel ne borom julli julloon nga ba noppi léegi nag bu ñu noddee rek nga daal jóg tàmbalee julli loolu bu fekkee ku ñu roy nga ci yow defe loo def aw defin la sib ko bu fekkee du ko ñu ci moom deesu ko sib bu fekkee da ngay door ak si itam wala fekkoon ngay naafila te noppee booy dara nekku ci waaw bu fekkoon ngay naafila da ngay wéy rek bu fekkee nga dox si itam du teel nga daal tàmbali sa naafila rek wa bax da fardil jumaati ak gannaaw faratay juma fii musallaaha ci jullikaayam ba ba tey nee na bu ñu jullee juma ba sëlmal dañuy sib foofa ku fa naafila lu may nag nga génn ba ci jàkk ji nga génn jumaa ji dellusiwaat kon su boobaa mën ngaa naafila ak it li fekk ilimaan génnut waaye su ilimaan génne wala nga xam ne toog na fa diir boo xam ne mënoon naa génn daa génnul rek ba tey mënees naa naafila wala tukrahu defu ko si xinda waqtil istiwaay fa waxtu yamoo ga maanaam saa yoo bi rëcc na ñu toll ci digg bëccëg rek nga xam ne eh, li bi weesu ak li mu dëgmal ñoo yemoo képp xam daal bëccëg bi dafa yem ci istiwa bu ñu ko waxee mooy digg bëccëg kese nga xam ne li weesu li weesu ci bëccëg bi ak li jëm ci ak li des ñoo yemoo képp ah su boobaa nee na sibuñu ko du tee mën mënees naa naafila faslun al adanu noddu sunnatu sunna la fil mawaadihi ci béréb yi ëllëti yi nga xam ne alxaadatu lay aada an taj tamit mooy bu dajaloo an naasu nit ñi bihaa ci ñoom kal jawaami yi ni ki jumaa yi wal masaajid yi ak jàkka yi nee na noddu sunna su dëgër la fépp foo xam ne jàkkaa nga fa wala jumaa moom ak lu jàkka yi jege jege danañu bëgg mooy sunna la su dëgër waxtu ji lu jotee ñu noddu yëgle ko bu dee béréb yoo xam ne mbooloo dafa atase moo xam marché la moo xam garab penc la te jàpp nañ ne bu noddee dana am ñëw wuyu si julli seen woote boobee mu nodd ga ba tey kon sunna la ñu nodd waaye bu ñu xamee ne bu ñu wootee itam bu noddee itam kenn du ñëw nag waaw kon nañ bàyyi kon booba tàmmatuñ ko noonu la ñu tëj kaso noonu xam ne kaso ba kenn leen ci fekk si bu noddee itam kon ñoom tàmmuñ ci ñoom ñu nodd waxoo moom nodd bi duxooli waqti salaati ci tàbbi waxtu julli wa al mafrodati wa di wuñ farataal bil alfaadi ca baat ya al mashruhati ya duñ yoonal noddu nee na mooy nga yëgle ne waxtu julli jot na te yëglee ko ci baat yi nga xam ne moom la lislaam tëral baat yi ko lislaam tëralee na ñu defe ko ca nga defe ko ca nag loolu moo tudd noddu waxoo moom nodd nag kon mooy nii allahu akbar mooy njëkk allahu akbar mu ñaari yoon yoo xam ko yëkkati ci kaw teg ci ashadu maa ngi seere ne an naka lay mbir laa ilaha amul benn buur illallah ndara yàlla teera ko baam waat ashadu an laa ilaha illallah ashadu naa seere ne anna muhammadan naka muhammad rasulullahi ndaw li yàlla teera ko baam waat ashadu anna muhammadan rasulullah su ma yurajjihu topp dana deltoo ashhaadatayn yaari seere bi arfaxa ci lu gën a yëkkatigu min sawti yi ci kàddoom nga awalan ci yoonu njëkk wax allahu bu kawe nga wax ashhadu an laa ilaha illallah ñaari yoon wax ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaari yoon xaj waat leen yëkkati leen ci kaw man dellu leen baamu yëkkati leen ci kaw yëkkati goo xam day xumbe ne la ngay waxoon allah ku bari fekk na li nga waxoon ashhadu moom ashhadu yi nga njëkkoon wax moom dañuy xaw ne gën a suufi allah ku bari maanaam allah bari yoo nga njëkk wax na gën a yëkkatiku nga wax ashhadu yaari ashhadu bu ci nekk nag waa boo xam des na ko dégg sax waaye du xumbe ne allahu akbar ya nga dellu baamuwaat leen ci kaw nag su ko defee baamuwaat googu lay wax naa day xumbe moom nen na nga waxee woon allahu akbar bu njëkk su ma yàqool topp dana wax ne xayya jublu si leen mooy ñëw leen xala salaati ci julli xayya jublu si leen xala salaati ci julli moom it doo wax xala salaati booy nodd ngay dagg ñaari tomb ñi def foofu nekk ne xayya xala salaa ngay def maska ne nga xëy jàng masque nekk xayya xala salaa xayya jublu si leen alal falaax ci jëf ji sabab texe xayya jublu si leen alal falaax ci jëf ji sabab texe muy julli de sabab moom it ngay wax xayya alal falaax nga xam ne ngay maasaale ax boobu xayya alal falaax askan nag moo fi nekk allahu akbar allahu akbar bu la neexee ni allahu yàlla akbaru muy aji màgg mooy yàlla rek màgg ndax màgg ndoowut kenn bu la neexee ni allahu yàlla akbaru moo gën a màgg ci boo nattalee ni am na leneen lu màgg it yàlla gën koo màgg rek yàlla du màgganteeg moom daal nga daaneele nag laa ilaha illallah laa ilaha amul benn buur illallah ndara yàlla laa ilaha illallah ngay wax wa yashir dana dolli fii addaani suufe ci noddu suba wax da xawli yi ci gannaaw waxam ji xayya xalal falaaxi xayya xalal falaax da cee dolli ab salaatu leerub julli xayrum moo gën mina ci noflaayu nelaw marrateen yaari yoon xanaa bu dee noddu suba boo waxee xayya xalal falaax ñaari yoon nga cee dolli as salaatu aw am na day naqare wax waaye faaw nga jéem ko yaay maska léegi mu naan naaw mu faaw nga wax aw am te doo wax naw mi di wér wér wala yu joosu lu dagan an yu àddana bu def noddu li salaat ñeel ak julli mu ne salawaat ci julli alxams ya di juróom xàttal jumaa ci ba sax julli jumaa qabla waqtihaa njëkk waxtoom illaa salaata subahin dara julli suba fa inna woon naka moom yustaxab bu def na sopp an yu àddana bu def noddal laxaa ñeel ko fi sudus ci sudus ba al axiri bay aji mujj mu ne ci guddi gi xabla tuluuxil fajri ci njëkk fenku fajar nee na araam na nga noddal ak julli di ko tey nga noddal ko fekk waxtoo jotul ndax nodd mooy waxtu yu jot na kon nag bu fekkee jotul nag ëpp naa def day araam ne ba mu des julli suba suba nga xam day fekk nit ñi nelaw dañoo bëgg ñu noddal ko noddu yeete noddu yeete gi moom lu ñu sopp rek la su jotee dëgg dëgg na ñu door a nodd nodd gi xam ne mooy sunna noddu yeete googu nag boo defee guddi gi juróom benn xaaj bu juróom yi jàllee rek mu des naa noddu nodd ku njëkk gi bu jotee nañu door a nodd noddu ñaareel gi muy sunna tubaan dañu waxtu lañ ciy jaarale saa desee waxtu daal fajar dëgg dëgg bu desee waxtu rek ñu nodd nodd bu njëkk xam ne bu ñu waxtu bi mu kese rek daal nodd nodd salaatu hmm. moo tax mu ne suma yu addanu topp def na nodd la xaa fajar ñeel jullit suba saaniyan yoonu ñaar saaniyan noddum ñaareel xinda duxul waxti fa tàbbi waxtu bu waxtu jotee ñu noddal ñu noddal ko noddul ñaareel la bëgg a wax wa yustahabu def na sopp lil munfaridi ñeel kenn wala ñeel aji wet isa kaana ndem nekk na musaafiran di aji tukki an yu addina mu nodd li xadiisi abi sayid ngir hadiisu abi sayid dafa wax ne bu doon yow dong yaa dem di tukki tukki boobu nag sax dañ ko wax noonu waaye dem dem ci àll bay liggéey sax ci la soo génnoon rek donte dangay dem ca tool yi dong di sàmmi mbaa ngay bay waaw ñu sopp bu noddu jotee rek nga noddu doon te xam nga ne kenn du ñu ànd yow ci julli gi te ñu sopp nga noddu bu doon mbooloo itam noonu la mel moom du tee ñu sopp mbooloo ma noddu ndax addis boobu yonente boo xam Abu Saïd ne ko woon yow day gis naa da ngaa bëgg lool àll beeg jur gi waaye boo nekkatee ci àll beeg jur gi ba noddu jot na nga noddu te yëkkati sa kàddu bu baax waax ndax kat kuy noddu ku ne lépp lu kàddoom jot moo xam lépp lu dégg kàddoom xam jinne wala nit wala leneen lu mën doon bis pencee dana seereel noddukat boobu jëf ju baax jooju mu defoon loolu li ak yeete la wala yaxdar na wattandiku al mu addinu aji noddu ja min maddi baa i akbaru ci bijji baa bi nekk ci akbar maanaam booy noddu bul wax allahu akbar maanaam ba boobu ci akbar ji nga ko ba muy wax allahu akbar rek wa ashhadu ak amsa gi ci ashhadu xam nga ashhadu danaa seere la day bañ nga bijj amsa gi ne ashhadu xam nga nga ne maa ngi seere ne yàlla rek ay buur boo ko bijjee ne soppiku ndax danaa seereem du seere loolu lay daal di soppiku ak laajte wal jalaalati ak amsa gi ci baatu allah lafdul jalaala baatub màgg moomu allah la ñu jublu moom da ngay wax allahu rek te bañ wax allahu soo ne allahu li muy tekki mooy ndax yàlla gën ndax yàlla rek ay borom déet loolu lay doon laaj lay sotti ko kon allahu rek la ñuy wax wa minal waqfi na moytoo taxaw xalaa laa ilaha ci laa ilaha maanaam laa ilaha alkubéer googu day bañ nga taxaw ci maasku masku nekk boo ne ashhadu an ne laa ilaha xam ne maas nga ko xa day bañ nga ne ashadu an laa ñu ne ko maas maas ko ne loolu njuumte la wa min tarki idxaami daali ak ci bàyyee dugal daal ga firra yi ci raaga min muhammadar rasulullahi ci muhammadar rasulullahi maanaam suñ dee bind moom nii lañ koy bindee dañuy bind muhammadan teg ci rasulullahi waaye sooy jàng dañoo sopp nga nga jàng da ak ar ñoo bëgg nga maas fee daal gi da dong ma ne ko defuk maskam ñëpp ci raaga jàngale ko daal di jàng muhammad dar rasulullah lañ tàmm ne booy jàng dëgg-dëgg moom maanaam booy xool minim moom dëgg-dëgg moom muhammad dan moo fi nekk waaye loolu tàmmuñ ko wa min laami na mooy too fataa laam nga waa na mooy too maas maas ka yet ca kaw laam nga min rasulullahi ci rasulullahi maanaam ashhadu anna muhammadar rasulullahi rasulullah sax ngay wax day bañ nga wax ashhadu anna muhammadar rasulallahi rasul la lay bañ nga wax ko waaw rasul bu dee ci ñu jàng na hu xabar la dafa war a dafa xabari ànna ji la kon njuumte la nga wax ko rasulallahi rasulullah la wa min tarki nutqi ak ci bàyyee tudd ga ci alkubeer ga min hayya ala salaati ci hayya ala salaati xam nga hayya ala salaati waxoon ne ni booy noddu ngay dagg ñaar toom ñi ba mu alsaqir nga maas alsaqir gi maas du nekk day bañ nag nga def ñi ñeen ñuy wax rek xayya xala salaa salaa rek mel ne ëh nekkul ci kanam bëgg nga ñu ne xayya xala nekk na ci kanam wa min ci bàyyi xaalonk ga min xayya xalal falaax ci xayya xalal falaax xam nga day bañ nga ne xayya xalal falaax mel ne rek lamalif gi moomut ci baat bi dafa bëgg nga ne xayya xalal falaax xam ne ah yaa ngi koy jàngale noonu ndax dañu soppi xaalonk gi masque ak nekk wala nga bëgg nga jàngale masque mi googu wa yakun gën a nekk al adaalu nodd ga mutarassalan di lu ñu yolomlu te loolu mooy min xayri maddin ci dul ak bijji mufratin guy aji ëpp wala tam tiitin du caageenu tàllal itam gu ëpp nee booy nodd dañoo bëgg rek nga jàppandal sa kàddu bu ko xëcc xëcc bopp bu ko tàllal tàllal bopp nayam rek mawqoofan lu ñu taxawe te lu ñu taxawee mooy fa sa baat daanoo yëpp da nga koy maas maas ko nekk wax na moo tax mu teg ci xayra moo arab bindu lu ñu ihraab ihraab ci naxwu mooy baat ba nga maas ko ca mbujam la mu war a maas lool la ne booy noot doo ko def ni ki booy noot doo wax allahu akbaru fi sa daanoo ci akbaru jooju doo ko maas maas ga fa dëkk mooy maas ko lonk ne wax allahu akbar rek ashhadu an laa doo ko wax boo dee noddu ngay wax ashhadu an laa rek fooy taxaw daal lu nekk masque nga nekk wala bul fa def masque nga fa dëkkoon loolu mooy xayra moorabin maanaam du maas masque nga fa def rek masque nga nekk mutawaaliyan te aji toftaloo bi xaysu laa yataxallaluhu ci foo xam bi xaysu laa yataxallaluhu ci foo xam ne du ko diggale maanaam du aw ca biiram sukkootu noppi katiirum gi aji bari wala kalaamun du caageen wax sawa umay yemoo la kaana moo xam nekk na salaaman di ab nuyoo aw raddan wala fay ab nuyoo aw xayrahuma wala wudul ñoom ñaar waaw nee na ba tey nodd gi day aajowoo mu sësaloo baat boo wax teg ci ba ca tegu doo wax ab baat nopp yàgg lool nga door a wax beneen doo wax ci biir nodd gi itam ay baat yu ci bokkut mel ne di nuyu kenn ci bi ngay nodd mbaa kenn nuyu la nga di ko fay mbaa ngay tisli tax nga wax alhamdulilah mbaa dégg ko tisli nga di ko jéem a ndokkeel yépp daal boo xasee bay nodd moom dangay nodd kese rek bañ caa dara ci baat yu ci bokkut wa yustahab bu def na sopp li man ñeel koo xam ne sami ahoo dégg na ko ay yaxkiyahu mu nettali ko ilaa aaxiri shahadatayni ba ca mujjug yaari seere ya min xëyri tarjihin ci lu dul ak deltoo ci lu ak deltoo mooy ci lu dul yëkkati ga mu yëkkati ashhad yi ca yoonu ñaareel waa maanaam daa bëgg wax ni bu dee fiqu Maalik li ñu digal ci addis ba ci buñ dee nodd ki nodd lu wax yow mi koy dégg na nga wax loola bu dee fiqu Maalik moom dañoo bëgg ci nodd su waxee allahu akbar nga wax ko su waxaatee allahu akbar nga waxaat ko wax gi muy wax nag yaari ashhadu yi ci bu njëkk te muy xaw a suufe tuuti nga xam ne moom dana ko yëkkatiwaat moom it danga ko nettali xanaa bu ne ashhadu an laa ilaha illallah nga waxko ko bu ne ashhadu an laa ilaha illallah nga waxaat ko bu ne ashhadu anna muhammadan rasulullah nga wax ko bu waxee ashhadu anna muhammadan rasulullah yoonu ñaareel nga waxaat ko foofu na xam nga fi la ko yëkkatee ci kaw waaw fi la ko yëkkatee ci kaw yaari ashhadu yi te mu xumbe ne allahu akbar ju njëkk ja bu dee fiq maali nag moom seenum nettali foofu foofee lay yem ci yaari ashhadu yi ba mu leen di wax wax ba gën a suufe waaye ba leen di yëkkati ci kaw li kaw ba muy xumbe ne allahu akbar ju njëkk ja ñoom foofu duñ ko nettali am na luñ fay wax nag ci ñoom kilifa yi di ko bind ci téere itam di wax naa su yëkkatee ca kaw ba mu tolloo allahu akbar jëm njëkk a wax ci xumbaay su boobaa da ngay wax shahidtu bi seere naa li nga seere raditu billahi rabban wa bil islaami diinan wa bi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan nga waxaat loolu su waxee ashhadu anna muhammadan rasulullah ca kaw nga xam ne mu ngi toll ci yëkkati ca kaw su boobaa nga ne shahidtu bi ma shahidta bi bi habibi wa qurrati ayni muhammad ibni abdillahi sallallahu alayhi wa soo waxaatee ashhadu anna muhammadan rasulullah yow itam nga waxaat li waxoon léegi ba tey soo waxee hayya ala salaa nga ne nga bil qaa'ilina hadlan marhaban bis salaati ahla am nañuy wax nag marhaban bi ahlan wa sahla su ko defee soo waxaatee xayya xalal salaa yoon ñaareel waxaat loolu ma wax léegi boo waxee xayya xalal falaax nga wax laa xawla wala quwata illa billahi al aliyil azim su ko waxaatee yow nga waxaat laa xawla wala quwata ji bu allahu akbar nga allahu akbar kabira su ko waxaatee nga waxaat ko waaw su ko defee nag bu daaneelee laa ilaha illallah nag waaw nga daal di wax laa ilaha alayhi wa sallam wax nag loolee nga xam ne mu addis bi andi na ko te mooy allahumma rabba hadihi daawati taamma wasalaati alqaa'ima aati sayyidana muhammadan alwasilata walfadila والدرجة الرفيعة وابهته المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد li mu ne woon nag sopp nañ nga nettali nga nettali lu noddukat bi wax rek nga wax ko ca la jàll ne walaw kaana ak doonte nekkoon na fii salaati naafilatin ci jullig naafila maanaam yow mi nga xam ne yaa dégg kii noddu mi noddu bëgg na lu wax rek nga wax ko ba fi nga war ci yaari ashar yu njëkk yi bala ma koo loolu nag moom doonte da ngaa nekk ci naafila sax du tee ñu sopp ngay nettali loolu maanaam bala naafila gi yàq lu wax rek nga wax ko ba bu muy àgg foofu nga xam ne moom ci fiqhu Maalik nee naa la fa la nu yem ci nettali wa yustaratu def na sart fil muaddini ci aju nodd shuruutu sixatin sarti wér wa shuruutu kamalin ak sarti mat mhm. nee nan nga xam ne mooy nodd nag am na ay sart yoo xam ne mooy tax noddam gi wér bu ko defee ñu wax ni kon nodd gi mat na sunna si am na am sart yoo xam ne moom da koy gën a baaxal rek waaye bu ci amul tam du tee ñu ne sunna si moom am na loolu mooy shuruut kamaal mooy yu mujj yi fa shuruutu sixati sarti wér ga añ yàkkoona moo di mu nekk musliman di ab julit dakkarante góor baalixante aji kàllafe aqilante aji xello waaw nee na sart yi tax nodd gi wér ba ñu wax ne sunna si am na mooy na nekk ab julit ab yéefar ab yéefar moom bu waxan baati nodd yi rek ngir da koo neex waaye jubluwutu dugg ci lislaam gëmul lislaam xanaa rek wax na bàyyi loolu ngir neex na ko ci mu yëkkati ko du tax mu nekku nodd ba tey kii nodd na nekk góor ndax jigéen ak noddam dafa araam kii noddu na nekk mag bu mu nekk gone lu may nag mu nekk gone goo xam ne am na xàmmee te dafa sukkandiku ci mag xani mag mee koy xamal waxtu yu bu jotee te mag mi jàngal na ko itam ni war a yëkkatee nodd gi ba noppi kooku moom dana wér waaw moom mi nodd itam na nekk ku ànd ak sagoom ànd ak xel bu fekkee dafa dof ba amu tëlbati donte waxoon na baat nodd yi nam tëdd itam du ko tax a doy wa shurutul kamaali sarti mat ga añ yakkoon mooy mu nekk àddalan di aji maandu aarifan te aji te aji xumbali ko waaw nee na sart yi nga xam ne bu ci bu ci amee lay gën a baax waaye bu ci ñàkkee du tee suma si mooy kii nodd nekk ku maandu bu mu nekk ab kàccoor maanaam koo xam ne day jëf lu islaam bañ te di ko fësal na nekk ku maandu te itam xam waxtu ya xam waxtu yi baax na ci lool waaye nag bu xamul waxtu te balaa noddu ñu yëgal ko ko itam mu xam ne waxtu wa jot na door a dem def ko it baax na buñ kàddoom xumb ba noppi neex waaye bu yàlla dogalee kàddoom xumbut neexut it waaye wax na rek moom baade ak ja des ak sarte ja des nam doon rek kon baax na mu tattahiran tey aji laab maanaam sopp